asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. tax waxabu yaar saqu yaa may ci lifte wax di yaa wasax ni kuñu anaande acina jeen bisi mahamad bisi mahamad yin xata kamar kana isi dooni tuwa wax min yuqini adal wara وتجيب لسمة كان قسما ولا آدي محمد بها مشاكل أجيب سوف نستجيب من حسن محمد وقال لي فاهم لا سبحانك يا رب آمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شاري نبش عبد الخديم والتربية الروحية والمدرسة الخديمية وكان صحيح ak gaay yu baax yëpp rek sopp yàlla yi bu bu ñu mën di ne ku ku sopp yàlla rek waxtaan wi ci ci wala jëm waxtaan wi nag maa ko tuddee alfayda xadimiya alfaydatul xadimiya di ko tër ci wama bi niamati rabbika fa xaddis danaa wax ker naan gars yi am million ne am naa million te muy te muy dëgg dara néew ca damaa damaa jàpp ne sax yor million te te néew na yor naa ko ba am ko am soxla sama mbokkum jullit mu ca am soxla soxla soxla téeméer wala yooyu romb la jàll moo tax moom ma daa wax mbokk mu di mu di ñu ñëw di ci lu di sol xorom may leen di leen sol lu baax lool ba ku la gis waa mais it tey ak biir man la ko wax dara wax keer yi ne leen xam ni ci fii de baax na balaa bis bañ ci taxaw ñu sol suñu mbubb dëgg mbubb dëgg dëgg yi kon alfayda xadim yi léeg-léeg taxaw ma koy def it ngir ngir rek Sëñ Tuubaa sunu xadim sunu sang bu mu soppee ba nuñ ko nuñ ko nuñ gën a mën a yaatale wooteem bi nuñ ko gën a mën a dëgërale nuñ ko nuñ gën a mën a wane ni nit ñi ginne ni leen kat Sëñ Tuubaa dëgg la tigi tigi lii lii ñëw ci jamono ji ci ay nax gi yëpp rek kook kook yooyu du dara du ci Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa mooy mooy almasalul atam moo bax du Cheikh Islam moom mooy alfadu jaami di asmail asaari wa sifaat ko ko ko sëñ bi moo mooy ki doon yent bi tigi doon goo xam ne mat gam gam ko mate ginnaaw sa sa saxaaba yi amu ci dara ndaay ndaay gaa yu baax yëpp ak seen kook yaag seen talaba yi lépp jël na ko ba mu jeex takk xadama xadama sidqin fil awwalin wal axirin kooku sëñ bi waxtaan wi dafa am koo xam ne dafa demoon ca Maroc ca tarixal kër kër yi ja jël tudd tur bi ci magal gi géey ñu jàll géey géey jàll ca la ca demoon ca la ma woon dama dafa dem moom ñaar wooma moom ak keneen ñaar ñoom ñëpp ñu wooma wax ma ne ma kat dama ne fa ba ba am fa ñeent fukki fan di di di gastu ba def nañ sax seen si seen tarbiya ba loolu nag loolu nag tiital ma lool kenn ci ñoom andi ma ci andi ma ci ci ci téere yi Cheikh Mouhamad Faw si alkarkar yi mooy alkarkar yi xam ne ñooñu mooy ñooñu di sol njaxas yi. boobu njaxas yi ay wax nañ ne sax ci réew mi sax ay tubaab andi nañ ko fi ay tubaab andi nañ ko fi loolu nag moom mooy lu xorom xam naa ne ay ay ay saako ceeb li indaale xam naa mbokk yi njaayeen ñi xam naa ñoom ñoo xam naa xam naa ko xam naa wax ma bëgg a leeral foofu moom de nee naa ci téere mi 2004 2004 ci la jàng na ba ba am bakk si moom si kër kër yi te na koy daa daa xotti bag ba xotti xotti xotti xotti si xedda dem yooyu xotti na lakk ko xotti lakk daal di dem siyaax nee na nee na nee na nee na ab diir bu wër gaa yu baax yi barab yeeg ñu ngi siyaare gaa yi ñu daal di ñëw tribu wu ci ci ci ci bàyyi taxam maa ko ma ngi bàyyi baram waaw daal ci tribu wu 2004 ko gëstukat balaa dina wax ne ne am na la la mu am daal di tàmbali bàyyi mu ndaw boobu bàyyam bi bi ko jur moom son projet daal di ne bàyyi mu ndaw boobu bi muy dem ne ko teg ko digal ne ko mu saq am na ndigal mu daal di koy doon ca saawiya ba di tarbiya wax na sax ne ñett ñi di tarbiya bàyyi mu ndaw boobu moo ko wax ci alamul arwaax lam leen di sax xam ne nag moom ci li muy tarbiya mooy Allah loolu la loolu la loolu la xam ne moom wax na ne ab dongaam mooy koo xam ne day day gis dara ku gisul dara rek doob dongaam sëb sëriñ doob dongaam loolu loolu muy am lu am solo loolu am solo jàpp naa ko ci kii gis naa awraatam yi waaye loolu dafa am solo lool donga bi ak sëñ bi sëñ bi daa xam dara kon donga bi dafa dafa xam dara nee naa ci bu dee sart yi matal na ko nee naa nee naa ci xoqal nga suñ ko waxee tarbitul xaal bil maqaal bil askar boo mënta ji boo mënee ku mel ne Cheikh Mouhamadou Fadal kàngam yooyu Cheikh Mouhamadou Moustapha ñoom leen baara ñoom kàngam yooyu rek ñoom dañ lay partagé monsieur Ayib ñoom Cheikh Abdoulaye ñoom du xaaj ñoom ñoo ñoo rek suñ daaru Assane Ndiaye ñoom sang sax buñ la xam ne mën nañoo partage connexion dañ la koy partage ñoom waaw boo amee topp yoo bu dee am nga topp melokaanu woon nga melokaanu nax ju buñ la xoolee mën laa partage connexion bu dul loolu ñu ñu ñu ñu connexion partage connexion mooy bi xaalam bil maqaal bu dee nag koo xam ne moom ku mel ne sama maas nga xam ne nga xam ne moom nga xam ne moom moom lim lay mën a defal kon kon mooy jox la jox la njëg nga jënd connexion loolu mooy bil askar wax foofu la am solo deux mille deux deux mille deux wala lu ko jiitu deux mille dal ci laay kër bi googu yor naa ko kii yàgg na yàgg na ba ba deux mille nangam bi la muy tërbitu allah mu tërbitu ko ñeent fukki fan lay doon noonu ko noonu ko saxoon ko mooy si karkar yi bi mooy jox rek ñeent fukki fan lay doon mooy mooy tuddee alxalwal musawiya man nag booba ma nekk ci bi ma koy def dafa am man xalwa bu ma tuddee xalwatun fi jalwa balaa koy tuddee xam nga jamono xat na ñeent fukki fan nga tëju ko kooku kooku kooku kooku maanaam dana xat ci itti jamono yi itti jamono yi mu def ko man xam ma ma indi ma leen xalwa boo xam ne xaw ma ba xam mag ñi daañu ko xam ne ma tudd ko xalwatun fii jalwa bi ma koy def damaa daal di def ne waaw gat ginnaaw boobu maa ngi bagante boobu ma ne kon nu may def kon ma ne naa jël lu mel timis timis ak gee boo jëlee timis timis fenn ba noppi yor sa kurus nit ñi dañ la mën a may jàpp ne da da da da ngay tasab moom dañ la waxee tas bi xarit ci fa nekk. waaye nag fa laay nekk ndax dafa xaw a gudd ci man sama lam ba di ko def nga xam ne fa laay nekk ba julee ba gee waaw waaw waaw su su su ma julee ba gee ba noppi loolu nag ma daal di ma daal di jóg nga xam ne ñeent fukki fan. nga xam ne noonu laa ko daal di tanzime organisé ko noonu nga xam ne moom nga xam ne moom waxtu woowu foo mën di nekk yitte ju mën di nekk it moom sax na ma dimbali ma ba ba ñeent fukki timis yooyu yëpp suñu boobu ci nu wax ci taw bi wax kaara ci loolu benn gàllankoor ba def ko deux mille nangam bi doo xamut deux mille deux trois deux mille nangam daal léegi bi ma ko ko defee nga xam ne ne ne ne ma gis ñu ñu wan ma ma gént gis gis gis ñu wan ma benn benn kooku mel ni ab shérif naar mu mbaay mbaay di ñu asalaamaaleykum maaleykum salaam sama benn rakk sax na xanaa jàpp ne mel na ku jàpp ne moo ñu ñooñu di laaj dara ma ko ñu jégal jégal ñu ne ko dee sëñ bi bisimilah waaye ñoom soo marqué jooju jooju jóg di dem mu naan yàlla na ko liggéeyam day wallu mu daal di di ma wax ne ma jiggi nga maqaama yu ndaw yi am nga ci ndigal ci woote am nga ndigal ci sama dëkk daal may joxu tur tur sangam jox jox ma tur sangam loola ca loola loola yooyu ci mooy jeexitalu kër bi nga xam ne ne lu leer man ñi la loo xam ne moom ne moom leer na tax njëriñ ja ginnaaw loolu loola ci xamal nañ ma ne ma ci lim sangam moo gën a gaaw ci fatu fatu ci Allah waaw gis na ma la ma la iib bi nag ci la bokk moom te booba lim booba moom laa defoon daa am lu ma ca lu ma ca ñambaasoon waaye waaye moom ginnaaw gi nag ñu ne ma lim bi rek lim bi rek rek rek lim bi rek moom moo gaaw ci ci ci photo ñuy dox ca loola ñuy dox ba bañ waaye wax ma barab bu ma waroon na na na na toppandoo ca Madina suñ suñ dëkk Madina wax ma wax ma ne ma wax ma barab ba fa mu nekk wax ma ñi nga xam ne ñoo fa daal def gàmm wan ma leen wax ma lépp daal am doxin ne ma nag da farlu ci def ko ma ma dem di ko def suñu Cheikh bu bari ma ñaan ko foofu su mooy wax ma ko. mel ne daal dëkk bi for dëkk dañu jóg ngir bëgg daal loola do am daal ma koy toxalal ne ne ma jox ma feneen wax ne foofa dañ koy def nangam xaw ma lan école yi xale yi ndaw yi Abdoulaye Wade boo ñu ne Abdoulaye Wade la lañ lañ fi defal xaw ma nangam yooyu layee non dara amu ci sax ma daal di toxu gannaaw sori tuuti ba def fa ay saket saket saket waaye ndoxum dugg dugg ca am sama kilifa goo xam ne ndax yow saket jaay ko moom waaw dama la koy jaayal ndax wutale ay ay ay seng moo tax bañ koo jaayee am am ni ma yëgee ne jaay ga ngir a ñëw yor juróom man juróom juróom ñaar ne ma lii kat ci ci sa saket la waaw maa ko jël ma ne ko jox ko suñ boobu man koy jaay ma dara loolu lépp daal di naaw wut na ay sakket wut ay xar ak lu def ko lépp naaw te te te te boobu jox na ma sax tur ne ma ne ma daal jooju na tudd Manaarul Huda waaye waaye gis nga gis nga gis nga waaye maa ngi jàng rek Sëñ Tuubaa Mbakke Kajoor jaag Daaru Salaam jaag Mbakke Kajoor jaag Mbakke Bawol ba ci Daaru Salaam moom la jàng Daaru Salaam dafa daal di dem Tuuba waaw waaw njëriñ moomeel gaa yi lay daw booba rek hijira ne ko sax moom tur bi defoon hijira rek dëgg daay demoon na Mbakol jógee fa daal di dem foofu ci ci kokki nga xamante ne lu am solo ñuy dox ci ci jaloo la sëñ mag bi tedd bi maa ngi wax ci al alfaydil xadim yi ji daa xam ne kon Cheikh Mouhamed Fouti kon mi mi mi ko wax sëñ boobu moom waxoon waxoon na ma ne ma ne ma ne ma day moom bu ma déglu woon sa sa waxtaan yi du du du ma dem Maroc waxaat ma ma ma ne ma ne ma ñàkk xam nga tax nit ñi moom luñ gis ak yëm ko. xam naa xam naa it rek ni ni ni dégg ñu ñu moom weexum dara da leen di yóbbu ci daal koy daanaka def ko xërëm. ko nga xalifa yi kon laay wax sëñ bi sëñ bi ma may dox sëñ bi sëñ bi wax ma jox ma ne ma ne ne ma jox jox na ma tur ba mu doon wérnd Gabon Gabon ne ma ne ma tur tur tur ba nangam la nangam la ma ne ko alhamdulilah waxaat ma ne ma jox naa alafi Touba alhamdulilah loolu sax mooy naal bi naal dara yi ma def ko ci ñaar fukki juróom-ñetti waaye moom ñaar fukki juróom-ñetti téeméeri junni lépp bëgg naa ko waaw daal may wax ne ne ma tur sangam daanaka wér dëkkam maa ngi wér sakkatu fa sakkatu naa la wax sakkatu fa sakkatu waaw ba ci yàgg moom waxaat ma ne ma ah ma jël seesin tur wala dana ko wér ah ma jël seesin xanaa booba njëriñ la muy muy taw feex te de ba ci yàgg moom jox ma ne ma lii joxoon naa ko maam Thierno Ibra Fati Thierno Ibra Fati moom joxoon naa ko lii dalal ko ci lii ma ne ko alhamdulilah. ñuy doxaat ñuy doxaat mu daal di di di di may jox waaw gëdd wax ci woo xam ne la cay gën a kiimtaane tegtal ya tegtal ya mooy mooy boobu damay gëstu booba wedd wi ñuy tuddee wedd naa sirié suñ ko daa daa ko joxe xam naa maa ngi ñaan sa weddul rifaa yi bi ñu wax ne sëñ Moxtaar mu sëñ Mor ma xamoon ko so nee na ma sëñ bi daana ko ko ko joxe xam naa ko ko am mu sax xamu ko si sira bi laa soxla suñ tuba xam am naa sëñ tiyaan yi ba xaajir yi ba sa sëñ yi moom am naa ko noppi ma xusum ñett yëpp am naa ko ma gis kenn koo xam ne damay niru ci waa dër yi melawa ma ne ko li ma yëg ci moom daal ne ko ñëw ci waa dër yi bokk ma di ko wax ne ko man de damay gëstu nature yi mu ne ma man day yor naa yoruma ko de waaye yor naa beneen bu sëñ bi joxoon ma am ceer ma daal ne ma nag li ko waral nag mooy dama dama dama yor doomam daal ma daal may taril wér doo parce que bu di ko tooñ ci ci gën di gën a ngi gën a ko kon de danaa ko laaj kon sëñ Abbas ma gëstu ne ma sëñ Abbas dafa fàttu woon ndax ndax da nga ko gisaat ma ma xëy suba daal di wax kenn ci sëti daara yi di ko ne ko dama gëstul sëñ Abbas boo doomam doomam ji dina ko sëñ bi dafa ci fatu ndekete booba mu ngi ci ci wàccaay nga tax tax kooku moo ma doon gëstu la loola keroog bi ñu ne ma si Abbas ne woon na ma ma woo ko ne ko ndax dégg nga daal dara ma ma ne ma kon de wér na ah nga ne kon tegtal la moom wér la wax ne wér la la la woo xam ne xam naa jumbul mën naa am mën naa am mën naa am loolu daal. nga xamante ne ci ci ci faydabul xadim bi bi ci laay wax nga xam ne loola loola loola ñu dox ba ci yàgg nag xam naa xam naa ci ca deux mille ji rek deux mille deux mille deux mille nangam ji rek ñu ilham moo wax ma ne ma atarsamul azam wa huwa xaasun bil mala il ala nga xam ne ñu suba ba noppee noonu toog naa rek sama soxna si si sax si ma nekkul boobu sax boobu sax boobu sax bi ma ko bindee mokkal na ko ci waaye ginnaaw bi nee na fàtte na ko ginnaaw bi bi bi yàggut bi rek nii rek ñu wax ne ma al ismul mashhur bil malaa'il a'la tuna al ismul mu'ashshar al mashhur ñu wax ne mën nañu ko tuddee sax am naa mu'ashshar bi moom mooy araf ya fukki fukki araf la moom it muy ay taw feex yu yu yu kawe yooyu nag moom bokkut ak nag miraaj bi miraaj kursi bi nga xam da ngay dem ñu naqaamaat yi am na am na diw sàngam moo xam ne di am murid la maanaam maanaam maanaam xam dara ba mu nekk ma mooy mooy xadatul bu dalaay ma ma ma nga nekk ci kaw ca ca kaw baytul maamoor bu boo boo fay dem baytul ma ma maamoor ngay jaar fitti jëm kaw boo fittee foofu la ñu wax xadatul bu dalaa noonu la tudd de du du du ab daal noonu noonu la ñuy wax ne moom noo tudd waaw foofa xadra ba noonu la tudd ci arab al bu dalaa waaye du ab daal waaye nag waaye nag mooy ab daal rek waaye tuur nag lañ koy jox yàq boobu. waaye nag foofu foofu foofu nga koy romb mu jéem a làqut waaye du teewul yàlla nit xamal la ko muy neex la neex daal muy muy muy neex a neex yu am solo yoo xam ne ndeew daal ndeew daal Cheikh na Xadima Ngoog qaddasallahu sirra wa karamahu wa karamahu wajhul akram asalihu tamkinan li xayraati foo koy sëñ Tuubaa nga xam ne faydaam ba ma nga fa de géej yi leeram yaa ngay yëngu di di di pallax ku soxla rek ndékk waaw ala fa taaradu laha ala fa taaradu laha ala fa taaradu laha ala fa taaradu laha ala fa taaradu laha ala fa taaradu laha ala fa taaradu laha